Nous ñi ngi ci kaw Maxtaan Al Amin momit mi ngi fi Ablaye ndjay Ngalgu ñomit ñi ngi fi Dans non ko fédération bi nga xamni Italie Nous ñi ngi fi non ñuy ki nga xamni moy Serigne Cheikh Khadim Awaba mi nekkal fi AS moom it mi ngi fi kon mbokk yi nii la orateur yi di tëdde dañuy jox kàddu gi sëriñ Moustapha si Al Amin mu yëkkati kàddu DG ASPT it mi ngi fi kon ñu jox sëñ Moustapha si Al Amin mu yëkkati kàddu Serigne waaw euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Dabakh dafa maa woo léegi ni ma alxaaji Ousmane Gueye bu ndar doomi alxaaji Maodo Gueye la mu defoon daaw defaat na ko jël ay biis yu bari jox ko nja njaboot ga nekk ca ndar ñu ñëw gratuit alxaaji Ablaye ngal gu moom it tabaarakallaahu taraanga ja mu doon seq ak waajuram jox na ko sëriñ Moustapha jàpp ñu ci organisation bi sëriñ Moustapha bismillah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 مدي الخليفة سيدي أبو بكر سي محمد المنصور يالنا يالنا دوليكو ويرت دوليكو ندم ندوغالي تبير ندمم بنو توغي نياري ويرت غناو وانا ممن مي وسرين حبيب bu cheikh seydi mohammedul mansour borom daara yi nun ñaar nu ñëw mu wo sunu bay serigne babacar si abdul aziz serigne babacar ku ne xamna ni fu mu la tew mu tew doyna fa sëkk rawatina magam ju tedd je ca dakar seydi alxaaji malik abdul aziz mu ni man kat ndigal la ma joxe woon rekk lay feddali ziyaar baa ngi ñëw ñaan mu yegseeg jàmm nu fekke ko tal ko waaye dama bëggoon ngeen taxaw taxawaay ba ngeen taxawoon daaw li tax nag ma woo sëriñ Babacar Sy mi mooy yoonu ndaw mag baax na ci ma woo ko rekk mu ñëw magal leen bu ngeen xamul lu ngeen di def laaj ko mu wax leen li ngeen di def lu ngeen di doxal mu jëmmal leen di mag mu mel ni maa teew boobaak léegi yaakaar naa ni ba nu fa jógee woo nañu organisation yi nga xamante ni moom la santaane ñu woo leen ñépp jiital ci ummu dawair mu di daairatul kiraam toftal ca daairatul ahmadiya toftal ca fédération ahmadiya ndax ñii kat ñoo cosaanoo ñaanoon bis bi cheikhul xalifa mu jox leen ca ndigal ñu ànd kook fédération yi nekk ci réew mi Dakar Tëngéej mboolem fédération yi ci réew mi yépp ñëw pour def ko mu nekk bisu ziyaara ziyaara di bisu feddali wëllëre sunu diggante nun taalibe yi ak sunu kilifa yi rawatina moom mi nga xamante ni mooy yàkkaaru ku yàkkaar leeru Seydi El Hadj Malick mu di Seydi Aboubacar si Mansour mu joxe ndigal ya itam ni structure yep nañu daje ba ñu dajaloo informer le ministre de l'intérieur mon mot informé le président Macky Sall informé Amadou Bami, premier ministre nous avons joxe des ndigal ci ni taxawal CDD mom la khalifa don lire ci préfecture bu ñu dem le gouverneur Seydi Gueye tabaarakallahu taxaw taxawaay ba ko war ñu dem ca Thiès jóge fa dem ministère de l'intérieur fekki ministre bi ndax ñaari at yi ku natt bis bi xam nga ni bis bi bu nu ko seetloo ñeenti at ci gannaaw weesu na ko mbokki taalibe yépp di ñëw di ko fekk si wëllëre diine yépp di ñëw di ko fekk ci njabooti boppam di ñëw di ko fekk si waa tariqa bi ñi ci bitim réew ak ñi fi ku ne di ñëw di ko fekk si mu joxe ndigal ya ni nañ ko teg ci yoonu xaqiiqa kër gi te nañu yëgal képp koo xamante ni yaa ngi bokk ci njabootam ñu solo doore ko ci cheikh Mouhamadul Mansour mii tey di sunu mag di khalifa cheikh mohammedul mustafa jamil sama turondo di khalifa serigne babacar toftal ci serigne cheikh ahmed tidiane si mohammedul mansour toftal ci serigne mansour bu seyid cheikh ahmed tidiane si ci Paris sunu mag Sering Habib Mungini ngi et délégation bu am solo teewal njabotu Serigne Cheikh toftal ci Serigne Babacar Abdoul Aziz ak nak banqas yi nga xamanteni ño aju ci mom di ay dawa'ir di ay coordination di ay fédération di sax ay daïra non coordonné wala daïra non fédéré ba li nga xamante ni mën nañoo wax ni mooy alxadara malikiya ala kaafati furuiha loolu moom lañu doon fàttali rekk ci kàddu yu gàtt ni ndigal yooyu mu joxe ak ñaan ga ba ñu ko taataanee boobaak léegi deselu benn fan ànd kook waa fédération bi waaye ànd ko ak daayiratul kiram sunu baay Mansour Diagne ànd ko ak daayiratul ahmadiya tabaarakallahu Mansour Pouy ñuy ñaari Mansour yu séq liggéeyu xadara malikiya ànd ko góor gi Korea vieux Korea yàlla dogal bi muy ñëw ci yoon wi ndog ñëw ci njabootam mu dellu waaye ñépp a ngi fi structure yépp a ngi fi COSCAS nag na ko sëriñ Abdoul Aziz daan waxe yore organisation bi ëmb action daara ji ëmb daairatul muxtafina ak yeneen structure yi lii bu fekkee ni ndam am na ci kenn lay ndamam mu di alxalifa seydi aboubacar si mouhamadul mansour te yaakaar naa ni ku fi teew yéene nga ko ndam ndax ku desal mag ñi yaay mag ñi te moo desal mag ñi desal ko ci seeni sumb desal ko ci seen liggéey kon kooku tey mooy sagu xadara malikiya yal na ko yàlla may mu dellu siwaat ak jàmm may ko mu yeggale sumbam yi nga xamante ni nun ñépp sunu sunu yëg-yëgu xol dellu na ci ku ko mënoon a gis ni ko jaajëfee bàyyi ndax li mu taxawe boobaak léegi yàlla na yàlla yeggaleel ko ko ci ndam nu duggaale ci biir ndamam ñaareel ba muy ndawi tariqa bi nga xamante ni ñoom ñépp ñëw moom la wax rekk Sëriñ Mansour waaye wax ko sëriñ Cheikh Tidiane mii nga xamante ni moom la yebal ci tegtalu Serigne Babacar si Abdoul Aziz ci tegtalu Serigne Maodo Hadj Abdoul Aziz bu ku ne xam na ni bu nu mënoon ñoom ñooy ñëw fekke ko ndax bis bii seen bisu boppa seen Hadj Abdoul Aziz baax dogaloon bu jotee ñu ñëw defe ko nii loola nag ñu ngi ko ànd ak ñi nu àndal ñépp ci ay mbokki pas-pas ak i mbokki taalibe ñu ñaan yàll na leen yàlla defal ziar bu mu nangu abayaatum jooja mu daan wax moom sallallahu alayhi wa ndax feddali ngeen seen kóllëre ñaar ñu ko séqati feddali sunu kóllëre rekk moo nu fi indi laneen soxlawuñ ko lu dul ñu nangul nu kenn ku nekk ñëw nga ak yéene bu rafet di taataan si ay ndigalam di taataan si ay tegtalam ma bëgg nag xam naa sax du lumat sant ma wax ko waaye dama gis fan yu néew fii ci Tiwaawan lu fi xew ci ay njaboot yu fi ñëw waxe fi waxin woo xamante ni ku bokk ci njaboot Seydi Hadj Malick rek waxin wi derange na la parce que ñi ko wax ci biir Tiwaawan dëkkuñu Tiwaawan te ku dëkkul ci ab dëkk ñëw fa wax fa waxin woo xamante ni taal na xare ca dëkk ba su fekkee ni responsable nga nanguwuma responsable du doxale noonu ma bëgg nag nun ñiy njaboot nu woy te am fulla te am itte gis nga sagu taalibe mooy fexe ba lu sëriñam bëgg mu fexe loolu am sunu kilifa yii nawlonte moo waral ñuy santaane dinu defloo ngir rekk nawlonte gi seen maam nawloo woon ku mu am kon su yàlla dogalee aw nit di ñëw ci dëkk bii danoo bëgg wax ko ci kanamu kilifa yi nga xamante ni tey le président Macky Sall moom la fi yabal mu ànd ak délégation bi président Macky Sall gàcce nga la ma ndax def na lu war a def ci ziar xalifa tudd na léegi kenn ku nekk yéene rek nga ci def woowunu kenn ni la kaay def ci ziaru Alaaji Maalik kenn ku ne yaa dem ba xoolal sa bopp xam ni war na nga ñëw jàpp ci li nga am nga ñëw jàpp ci muy teraanga yoo fi indi danaa ci tudd rek ñu mënul ñàkk yokk ko ci li xalifa wax mooy le président AIBD El Hadji Ablaye Dieye yàlla dogal na yónnee na fi délégation bu rëy teraanga yu yaatu te mu rafet lool ñu ñaanal ko yàlla la mu ko dénk mu di AIDB yàlla na ko ko yàlla téyeel ba li nuy ñaan mooy ay AIBD nekk hub aéroportuaire boo xamante ni li président Macky Sall bëgg ci mu doon ko Sénégal li aju ci wàllu aéroport mu doxalal ko ko na mu ko bëggee yàlla na ko ko yàlla defal tuddaale ci rek ku ñuy wax Maxtar Thian ca melax mu yëgee ziar bi rek yónnee na fi teranga yu yaatu ni ma nañ ko séddale ci wàññi te defe naa ku dem laajte waa njige méngoo ñëpp def nañ ko mu boole ci ay koppar ni nañu ko def pour ziaru Serigne Babacar mën a dox ngir wëllëre mellax ak Serigne Babacar si yàlla na ko yàlla fay kañu cay toftal mooy Seydi Alioune sàll bi yónnee na fi ay teranga El Hadji Khalifa wax na ko kañu cay toftalit mu nekk kenn ci kër gi di El Hadji Moustapha Ndiaye opérateur économique xalifa wax na ko ñeneen ñi ci des ay mbokki taalibe lañ yoo xamante ni lu ñu woote ci kër gi ñu def ci seeni teranga ak seeni yéene ñu ngi ñaan ci barke borom bés bi Seydi Haj Malick mi nga xamante ni tey nu ñëpp leeram lañu yàkkaar barke taawam bi nga xamante ni moom la dénkoon ngir kóolute gum ko kóolu mu di seexul xalifa ku fi ñëw ku ne tànk yi nga ñëw yàlla nga ni delloo la ca des nag message yu sëriñ bi la ki koy wax mooy kii mu yabal di sunu baay di sunu soppe di sunu xarit Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Abdoul Aziz ak mbokkam yu baax yi sëriñ Mansour Sy Jamil ak sunu mbokki taalibe yi rawatina sunuy mag sunuy kilifa ñu ngi ñaan kenn ku ne yàlla na la yàlla nangul sa ziyaar naal boo fi indiwaale yàlla na ko yàlla def ñu ñaanit ci li génne ci ziar bi yal na ci yàlla dëgg dalal pencu Sénégal dalal pencu njabootu Sénégal te may nu tawféexu yeggale liggéey bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ Moustapha yàlla na yàlla dëgëral la te sàmm la bu baax waa ASPT te ki ko fi teewal di Moustapha Seck teewal fi DG Pape Mao Diouf ci ñi nga doon gërëm léegi waa ñi nga xam ni ñooy waa COSCAS indi nañ seen taxawaay ñu jox kàddu gi ki nga xam ni mooy président daayira Kiram El sur Mansour Diagne sëñ Cheikh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 ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi sant suñu boroom taxawoon nañ fi daaw yàlla may ñu taxawaat fi ren kon nag foog ñu sant yàlla bu baax a baax a baax di wax asalaamaaleykum wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant nuyoo bi nag kii si jiital mooy suñu xalif général sëñ Babacar Sy Mansour yàlla yàlla yokk taxawaayam yàlla na ko yàlla dëgëral naal yi mu naan si kër maamam Sidi Aji Malick ay baayam taxawoon ko mu fas yéene àggale ko yàlla na ko yàlla matale may ko mu fekk ko tal ko ba ñu jël caab yi teg ko si loxoom ñun ñëpp ñu bokk julli yàlla na ko yàlla defal li si teg suñu xarit suñu maam lañ koy wax sëy Maodo si Dabakh parce que Pape Mansour rek la may wax kon nag man maam laa koy wax boroom xam-xam la boroom daraja la ku bëgg doomu aadama la yàlla na yàlla taxaw di si teg professeur sëñ baabakar si Abdou mu yor daara ji moom it yàlla na ko yàlla taxaw di nuyu sëñ Cheikh Tidiane